safaa Seck Mawa ginnaaw bu ñu nuyoo ñëpp ziyaara ñépp di jiital ci nuyoo bi xalif général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi te wér ak xalif général de Baye Fall tey nag ma am mbégte woote fii ci ñi ma bokkal li ñu mënta séddoo muy APR

président bu bes bi fi ñëw muy basirou jomay jaxar fay ak équipe yëpp di leen ñaanal yéene ju ñu am yàlla defal leen ci lu kawe seen njort ñun nag dañu nekk ci parti APR nekk ay militant première heure yàlla def yor parti bi doon ko dundal fii ci penku bi ñu génne ay élections. Yalla mo ñu doon may ndam Yalla xagn ñu ko ñuy nangu nak dogal bi Amad yéene ñun ñëpp takkaat laxasaa yi jàppaat ci li nga xam bu ko ñëpp jappé bu ko ñëpp bayé ñu japp ko muy APR ñun mom lañ am tay mom lañ am ëlëk ndax biñuy dem élection waxuma la li ñu am Sénégal rek waaye ndindi gii rek ak li ko wër daanaka 900 voix yi nga xam ne moom lañ fi am ñun bëggoon nañ lu ko ëpp waaye doy nañu sëkk ndax ñii fi toog di ay jàmbaar ñoom ñoo ko indi te ñooñu nag ñu gëm li ñuy def lañ kon du ñu def lu dul di leen sant di leen gërëm ci seen taxawaay bu rafet ndax heure bu ma jugee yéen ñëpp ngeen jug man nag. damay wax ñëpp mu leer ne yéene ji ma am ak fës ak li ma fës yéene def mooy téye parti APR fii ci dëkk bi muy Touba gii ndax bi ñu génnee élection ba léegi amul benn responsable wala benn kilifa gu ma gis sax nga daje ak say ak sa mbooloo di waxtaan te mbir warut a demee noonu yàlla def na ne Macky Sall def na fukki at ak ñaar ci réew mi am na ñoo xam ne. ba Macky Sall faloo ba léegi booba lañ ñeen nommé chaque weer ñu dem fayeeku yàlla def na ne man Macky Sall mësule bind bigam bi nommé ma terewul tey laa ko gën a jàpp tey laa gën a ànd ak moom loolu gëm-gëm bu ko romb man nag may am déception ci yenn yi nga xam ne ay kilifa lañ nekk ci parti APR parce que bërki démb rek dinaa ko wax nag man am na ku ma woo di ma laaj benn numéro kilifa mën naa jaar ci turwi wi Cheikh Thioro naan ma numéro am laa soxla dama ko bëgg a woo pour seet fu mu ruur boppam man loolu gàcce la ci man pour ma di ko gis nga xam ne ay kilifa yu bëree bëri ku ci ne ki amul woon numéro am sax wala yaa ngi ut di xool ak baaxam sax pour dem roo fa sa bopp wala nga seet foo dem léegi su xam ne dafay taxaw ne man mënumaa opposé wu loolu ay caaxaan la dañoo nekkoon ci ab parti di ci yëngu yàlla def ñu ñàkk nañ am ngor am fulla am fayda liñ amone ñu téeku ma ngi wax nak maire yi nga xam ne maireu commune yi ci Sénégal yépp lay wax nañu gor goru la lañu momul lima gëna bañ moy maire bu tok barki démb dégg na ko maire bu tok ne man mënuma opposé wu ndax ñun maire yi nangam ay caaxaan gënu ko mëna a gënu ko mëna a mëno dem ci bañéru benno bokk yaakar ñu fal la yalla def ñu dem ñak nguur nga bëgg jël sa bop bi diko ko ci ñu yor nguur loolu loola goree di mënu koo gën a romb ci adduna naan communes yi mënuñoo dem sans nga ànd ak état loolu ay caaxaan la tey jii quatorze seize communes yi nekk ci tuubaa yëpp nga xam ne quatorze communes rurales yi ak bu Touba beeg bu mbakke bi tey boo xoolee ku mel ni Jogomaay nga xam ne moo yoroon commune Sadio pourtant dafa amoon courage doon liggéey ci opposition bi teral mu gérer commune am kon ñeneen ñi nga xam ne alors yor nañ yeneen i commune nañ ci góorgóorlu ñoom it téye parti bi te bañ koo caaxaane te xam ne li ñu fi liggéey ci kanam tuuti nit ñi dañ xam bu baax a baax a baax yan taxawaay lañ ci am ak yooyu kon nag maa ngi lancé appel ñëpp ngeen xam ne parti bi képp ku bëgg liggéey na ñëw fii ci ndindi ñu ànd liggéey parti bi ci biir Touba ak fépp li ko wër ak département bi tàll nañ loxo ñëpp muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw ndax li ma gis nii dalul sama xel da ngay gis ay nit ñoo xam ne ci biir la ñu nekk sax li ñuy wax mooy dee naag dund na nit da ngay am gëm-gëm li nga am nga fonk ko même bu dee yow rek yaa ci des sax amal gëm-gëm nga fonk ko nga téye ko booy opposé wu nga opposé wu ci loo xam ne da nga ko teg ci xam-xam di indi ay idée di indi ay ay programme yoo xam ne nii dañ koy teg ci yoon ñun façon boobu lañ jël te façon boobu lañ jëm du ñu nangu nag benn nit boo xam ne alors dina nekkoon ci parti bi am fi lu ne gàññ nit ku ne yaa moom sa bopp boo ko defee tamit daanañu la xëyee ci rajo yi danañ la xëyee ci tele yi wax la sa bopp parce que nag liñ gëm mooy ñun ñëpp ñu ñu fédéré wu ànd am taxawaay bu dëgër te parti bi fii ci dëkk bi defe naa ne loolu la woote woon pour waxtaan ko ñii ma am ngeen xam ne bëgg naa weer wu ne ma dajale parti bi yëpp ñi nekk Ndindi ñu nekk Daara Xudóos ñu nekk Madiane ñu nekk feneen ak feneen ak feneen ñoom ñëpp ma dajale leen fii ñuy bokk di waxtaan di xàccandoo di dóorandoo dem waat ndam li te xam ne yàlla mooy joxe ndam loolu laa gëm te mooy suma gis-gis taxawaay boobu rek laa ci am. leneen li nag mooy ñi nga xam ne ñooy réew mi ñu ngi leen di ñaaral amaguñ leen luñ leen di waxal parce que tamit ñun bu ñuy wax nit dara dañ koy teg ci idée duñ duñ ko teg ci contre la duñ ko teg ci ci ci ci alors yaa nangu li ñu yoroon tax ñu lay waxal lu ñaaw wala dara duñ ko def doxewuñ noonu nañu xam ne daal ñi ma àndal ñëpp parce que nag li tax ñu def ko. am na sax ñu naan teel na mais teelul ndax bu ñu dee liggéey ci taxawaay bu am solo bokkoo ki nit ñoom it ñu toog di la xaar ca lañ leen di xaar ba pare jël seen loxo roofandoo ko ci pax mi ne la boo roccu du ñu rocc te du ñu rocc kon war ngaa mën a am taxawaayu ñoom ñëpp ne leen nag ñëw leen lii lañ ànd ñu bokkandoo di liggéey bu ñu jëmee élection législative ñu taxaw fas yéenee te parti bi uti ndam li incha allahu rabbi lu ñu am ñu xam ne loolu lañu yàlla may am donc maa ngi maa ngi sant ñëpp. di leen gërëm jërëjëf léegi ma dem ci kii waaw man gis naa ñoo xam ne xëy na bëgg lu yomb waaw gis naa ah camarade bi gis naa ñoo xam ne xëy na ay kilifa lañ ci parti bi dëkk ci dëkk bi bëgg lu yomb a tax ku ci ne di seet foo ruur sa bopp te duñ leen ko may buñ ñëwoon list nga daw dugg buñ woon leneen nga daw dugg tey bu ñu ñàkkee nguur gi nga waaf toog doo wax ak kenn tëj say téléphone loolu lañ dul may kenn lañ def nag du ma accuser nit ne dañoo yaakaar mais xëy na ku def xam nga ku deful xam nga lañ bëgg daal mooy ak jub ñun ci lañ nekk ci la ñuy woote te ci lañ bëgg ñëpp ñun ñi àndoon te gëm li ñuy def même buñ ci amuloon dara sax nañ ko téye parce que lii am na ñeneen ñoo xam ne xëy na placé wu nañ pour gën koo mën a def waaye man toog naa dégloo waxtaan ak ñenn ñi xam naa ne fañ jëm baaxul moo tax ma bëgg a dajalewaat parti bi yëpp pour toog ñu ànd liggéey incha